sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam na ma defal yow comme ça man léegi nga mën a continuer si dans sama marché. waaw baax baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la léegi léegi sa compte Orange Money international ak Tap Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Tap Send lii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 pay-per-view sur seen affiche point com. Euh, coow lu ci am bett na la wala. Ah. non bettu ma. Hmm. xam nga lu tax bettu ma bës. Hmm. Euh, Tapha Tine combat moog Boy Niang euh, saa kaane dafa am nuñ jëlee combat bi. Hmm. dafa bëri ak Ama signature contrat yi waa kaa Ama Baldé génne fa ay jaasi am ñuñ ci gaañ. est-ce que yaa ngi dégg. Mm-hmm. muy signature boo xam amaa Baldé dafa ñëw dal ci kaw gaa yi ànd ak Tapha Tine gaañ leen. Mm-hmm. ñu dem làmb ji Ama Baldé daan ko. Mm-hmm. gaa yi ne la woon wonni na. moo tax gaa yi bu ñëw ci signature da nga leen di xool ndax dañuy préparer côté yëpp duñ mayee dara. waaw maanaam loo leen xoos rek. day affaire bi day yëngu quoi. moo tax affaire bi bettu mais mais. waaw ndax fii fii waa Pikine fi lañ waaw. tournure ni bi nga xamante ne jël na ko combat bi am ay coow yu mel noonu. tey kon na jàpp ni Tapha Tine day wone ni li ma nangu woon ci sama digganteeg Ama Baldé du ma dama du ma ko nangu ci sama digganteeg Boy Niang. loolu Tapha Tine loolu lay wan ak gars yi ànd gars yi ànd ak xam nga euh, euh, Tapha Tine dafa am gars yi ànd ak moom dafa am lu ñu def seen bopp mooy gars yi fu ñuy jaar ba daan ko doon doonte man gëwuma yooyu. Mm-hmm. waaw euh, Tapha Tine amul lu mbokk da ngay dégg gars di ko wax. Mm-hmm. dafa am yu bëri yoo xam ne ñi ànd Tapha Tine dañ ko indaale ci làmb Tapha Tine waa làmb dañ koy xeex dañ bëgg mu daanu. Mm-hmm. yooyu yëpp de ba pare bi booy ñaa jëlee deuxième avance bi. Mm-hmm. da gis ne gars yi dañ ah gars dañoo joxaat ah, dañ joxaat booy ñaa avance. pour dooleel booy ñaa pour maam atu ci combat voilà yooyu yëpp koy dégg. Mm-hmm. kon yooyu yëpp day ci. day joué ci ci signature daje yi ñu war a daje. dañ jàpp boo xoolee ñaari daje ngi nii ñaari daje ngi ne voilà. dañ jàpp dañ leen di xeeb dañ leen di tuutal daal. voilà voilà voilà voilà loolu ñu jàpp quoi te loolu ñuy indaale booy xool. dama dégg léegi-léegi nga ne donte yow gëmuloo ko kon yow da nga jàpp ne Tapha Tine ñi ko daan du du ab xeex wala du ab ñàkk mbokk moo tax ñu daan ko. non man gawma yoo ci làmb diri euh, kii buzz. waa mhm. ay mystique yooyu euh, làmb mystique am na. Mhm. mais lamb individuel arbitre suuf la ñaari mbër yi dox seen diggante non loolu mystique amu fa mystique daanu mbër. Mhm. xam nga làmb dafa neex a ngay ñëw seetaan direct. Hmm. après gars yi ne li nga doon seetaan direct mbortu mi ñu rayoon ci buntu stade bi la ko xam yooyu ay dafa xaw a reetaalu quoi. <laughs> mais mais. ba léegi xam nga waa xam nga waa làmb duñ def jàngat. xam nga waa làmb duñ def jàngat. Hmm. waaw ma jox la benn affaire rek buzz arène nationale bi biñ ko ubbee ba léegi quatre vingt quinze pour cent hmm. ñi ñi pare physiquement ñoo daan. nañ def jàngat boobu quoi maanaam da ngay dem entraîner préparer ñëw. Hmm. quatre vingt quinze pour cent boo ñëwee euh, feu rouge ak doomu dàngu buñ sumee ko kan moo gën a baax état. doomu dàngu hmm. Franc Bébé Saloum buñ sum waaw buñ su Franc Bébé Saloum buñ sumee ko kan moo gën a baax état. daam seen naan di buñ sumee ko. Hmm. ak ak ak bu sab buñ sumee ko. Euh, dafa am benn combat gis nga Bour Sine ak ak ak Ama Sène Junior bu ñuy bëree. gars yi dañoo dugal seen foto yi ëtt làmb ji di bëgg waa ëtt làmb yëpp. Mm-hmm. mooy laay bii nii gars naa ah, ñaari mbër yi amu amuñ état mais Eumeu Sène moo tane tuuti laay nii Eumeu Sène junior moo tane tuuti état te lam ko tane la koy daanee. ñu ñëw mm-hmm. combat bu métti après Bour Sine dafa baay mm-hmm. moo tax làmb ji ay mystique nii non noo affaire bi da ngay pare physiquement. làmb ji fa xew yëpp nag na nationale bu ñu ko ba léegi ba ci. ñaar 2 ak Wës jàmbaar ba ñu sumee nga xam ne. lamb yi am yëpp quatre vingt quinze pour cent yëpp ñuy gën a indi état ñoo daan. mais boo jëlee boo jëlee combat bi. léegi nag jàng. mooy Tafatine ak Boy Niang gis nga ci diggante Yékini Junior la mujjee combat boobu mu daan ci jël bu rëy mais teew ci diggante bi Tafatine dafa gën a defarwaat Tafatine dafa gën a mu toll nii entraîné boo gisee gis ni am na changement ci moom mu jëm ci digganteem ak Boy Niang Boy Niang itam di defaru dara lu dul daan Tafatine combat boobu nan nga ma koy jàngatalee techniquement. waa waa xam nga xam nga euh, tafaatin luur bu mën a bëree la hmm. dafa mën a bëre am xeex atu ci xeex mooy kor bi hmm. ba pare car macha allah maanaam tafaatin dafa am avantage ci làmb kenn du ñu mbër maa ngi hmm. ci taay bi ci kattan gi ci lépp ci bëree ba ndax mën nga teg cinq combat yoo xam ne ni mu daanee bokkul gis nañ fi mu mën a xeex gis gis nga dernier combat bi moo Yékini jr gis mbot bi mu fi mbot ban luur nga gis ko mu mbot ci ci vingt ans yi génn ci làmb doo ko gis Hmm. waaw mais xam nga Tapha day ñëw ci làmb pression jàpp ko pression ci sport yëpp la am. Hmm. léegi nag léegi en général bés yu mag yi mbër day ñëw am pression pression boobu la gars yi jël ni mystique ba ci football bi Sadio Mané ne woon naa day teg penalty nga xool ko rek xam ne waa ji dafa dafa mi ngi mi ngi pression yi mu fi doon rafet. Hmm. léegi nag làmb nag duñ def jàngat yooyu yëpp làmb moom lu xew rek dañuy jël am benn côté buñ ko wéer. Tapha Tine moog Boy Pikine lay dem. Mm-hmm. maanaam dañ ko war a préparer psychologiquement mooy public gu Pikine bi. Mm-hmm. làmb am na nooy ñëwee ci làmb pression jàpp la nga ñëw public bu yuuxu la mën na yàq sa làmb yooyu yëpp dañ koy préparer mbër mi. Mm-hmm. Tafatine moog Boy Niang lenn la am ci Tafatine su jàppee booy Niang ngemb Boy Niang Tafatine li mu war a am ci làmb yow mooy wut ngemb. su wutee ngemb waa Pikine nañ xool fu ñu jaar na am ngemb. loolu mooy làmb ji. man Tafatine su ma ko doon yóbbu dama xeex xeex wóorul xeex ak booy bu mën a bëre wóorul booy bi bëggul kuy jàpp ngembum te tafaatin mën na jàpp ngembu tafaatin bu yóotoo ngemb booy ñaa ba jàpp waa Pikine nañ dem ñibbi day booy ñaa day daanu loolu mooy làmb ji. que jàpp ngemb. booy laal ngembam booy bi. que jàpp ngemb booy ñaa yomb na. non booy ñaa euh, jàpp ngembam yombul ndax naanaanu bërëkël la. Mm-hmm. te bëggul kuy jàpp ngembam bëggu ko booy bi bëggul kuy laal ngemb waaw mais yoot ko rek yoot ko bañ dox ci koom. waaw booy bañ dox ci koom xam nga combat da ngay indi sooy bëreeg booy boo xam ne ci ay action lay bëree booy bi day compter say pas. ñun ñëpp leer nañ ñu bu arbitre Tafatine mooy dox Boy Niang dox jëm ci Tafatine Tafatine mooy dox jëm ci Boy Niang. te booy bi daa bëgg kuy dox jëm ci moom. booy bi dafa mën a bëreeg luur. booy booy dox ci moom day compter say pas léegi nag stratégie boobu ngay indi compter say pas bañ a tëb. booy xeex nga xool fu nga dóor waroo dóor coup boo xam ne da ngay gëmm saa boo dóoree coup ba ngay gëmm booy bi mën na am mën na mën na am fu sori ci yow. Mm-hmm. maanaam Tapha Tine warul bëri erreur. Mm-hmm. ndax booy bi erreur Tapha Tine lay xaar ci làmb ji. pour daan ko. non pour daan ko loolu leer na làmb. mais mais waaw léegi nag booy dem wax nga may avantage bu Tapha wax nga may avantage booy ñaar Niang Tapha moom ngemb lay wër ci làmb ji Boy Niang moom jumloo Tapha Tine lay wër ci làmb ji mais bëgg na waaw affaire ñoom ñaar kan mooy sax favori kan nga gën a yaakaar ni mooy gagné combat bi. non Tapha mooy favori. Tapha mooy favori su ma yoroon tey xaalis di ko teg ci Tapha laa koy teg. ci Tapha Tine nga koy teg lu tax. li ma la wax Tapha Tine dafa mën a bëre mm-hmm. tëlewul xeex car macha allah taay kenn du ne mbër maa ngi te taay rek atula ci làmb c'est làmb moo bëriwul ay njool yu tàng rek mais làmb bu amoon njool njool mu saf njool mu tàng ndaama yi dañuy xaar. Mm-hmm. keroog Jacob Balde ak ak Manick bañ koy suble da bi ñi ngi waxtaan ci ëtt làmb ñi fataa ne taay bi ne booy bi dafa gàtt ma ne gis nga taay bi booy bi am avant arbitre suble Jacob Balde bu kadre booy bi teg euh, xeex bi ci yoon day gaañ booy mais buñ bëree boo bi mën na am dara. Mm-hmm. loolu day làmb làmb boo amee boo sutee sa adversaire da ngay am benn benn atu boo ci am boo xamee ni nga koy utiliser. Mm-hmm. te Tapha am na lépp kaar macha allah. waaw mm-hmm. ah, mais nag mi ngi bëre booy bu mën a bëre. booy bi lu am ci moom day bëre. te te booy ñaar fa mën a xeex. maanaam Tapha Tine daal buy ñëw war na paree ne war na mën a jël ku warul jël coup ku yàq làmbam xam nga am na mbir yoo xam dañuy jël coup rek bëgg a fay ku ku. loolu saa bu ko defee ci làmb yi dañ koy lëng. warul ñëw bëri indaale mer. <laughs> Ama Baldé laa duggoon Pikine mu daan ma noo booy bi damay ñëw du daan <laughs> loolu waru ko indaale quoi. <laughs> waaw ak lu mu mënta demee bi dafa war a yor ba jàpp. bu ñu xeex wóorul. bu ñu sampee jaaga yi xeex. xeexu ko mën a bëri mais buñ buñ sa xam nga booy ñaar xeex mm. mën nga gis booy ñaar dëggal boppam ci xeex musul am. booy ñaa moo tax bi gaa waxee booy ñaar moo dax xeex ci làmb ma ne noonu non hmm. xeexu làmb xëy na na xeexu box mais booy ñaa du xeex. Hmm. booy ñaa day dóor coup booy ñaa du xeex xeex mooy kii dëggal sa bopp. Hmm. Modou Lo day xeex dëggal boppam. maanaam dóoral ma dóor esquive loolu mooy mais booy ñaa musul xeex ci làmb. diggante ma saxal boppam ci xeex. diggante ma Sa Thiès xeexul. diggante ma ak xeexul. noo digg waa noo diggante mook Sa xam nga <laughs> xam nga Sa Thiès dafa attaqué xam nga Sa Thiès Sa Thiès moo ñëw doon xeex di gëmm xam nga Sa Thiès na ba pare da gëmm ko booy bi di moytu kuy di ko di booy ñaa nga benn loxo lay xeexe boo xoolee di booy bi di xeexe benn loxo di la ci duma mooy moo lay wan adversaire bi jàngul woon booy ñaa dafa ñëwoon rek damay daal ci kaw kaw adversaire bi ta te booy ñaa nag waa làmb ñu bëri joxuñ ko cër. Mm-hmm. waaw ñu ci bëri dañ jàpp ne booy bi da ñëw rek booy boo ko joxul tër da lay daan. da lay daan. sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax na ma defal yow comme ça man léegi a continuer si dans sama marché. waaw am na ma la envoyé léegi léegi ci sa compte Orange Money international ak Tap Tap Send. waa li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog.